delloo njukkal ak sargal ci ñenn ci doomi bawol yi gën a ràññeeku wala bokk seen taxawaay wala seen talent wala seen ak jàppale fës lool ci dend wi loolu nag moo waral événement bi di Baol Events ci njiitu Serigne Mbacke ak mboolem ñu ko ci jàppale amal nañ ko ci anam yu mucc ayib ci teewaayu ay kàngam yu ràññeeku yu ci mel ni ay kilifa diine ay kilifa aada ay politiciens xarit yi ak wëllëre yi ak mboolem taskatu xibaar yi. joxe nañ fa ay raaya ak ay neexal ci ñi nga xam ne nii tànn na leen ci événement bi Serigne Mbacke Dieng initiateur u Bawal Event dikkaat na ci ñun ci nu mu gën a yaatoo. dañu nekk doomi Bawal juddoo fi euh, jàngee fi defe fi li fi ndaw lépp di defe ñu gis ne am na ñu fi nekk ñu xam ne suñu aîné lañ maanaam suñuy mag lañ di yëngutu ci ay domaines yu wutantikoo di fasantikoo tamit ñu gis nag ne ñoom ñëpp kenn gu si nekk ci li nga nekk. kàngam nga ca kon dina baax ñu wan ndaw ñi nga xam ne dañuy soog a dugg ci euh, yëngutu ñu wan leen tamit ne leen am ngeen mag ñu nga xam ne que fañ nekk tamit ñu ñu respecté leen. alhamdulilah parce que réussite bi du woon ma wala objectif principal bi du woon xaalis kon comme ni ñu ko mën a waxee si kàllaama kocc objectif principal bi bi ñu amoon mooy nañu nit ñi wuy si bañ xam liñ bëgg liñ bëgg mooy naka wan waa Bawol wan waa Sénégal wan. waa àdduna ne leen kët ñun gox biñ nekk am nañu fi nekk ñoo xam ne ni ñi ngi yëngatu ngir dëkk bi jëm ci kanam comme ni ma ko waxee sànq nii da am ñu nga xam ne tey bu ñu ne dee tudd dina xaw a indi jiixi jaaxa parce que boo dee xool tàmbali moo metti parce que booy tàmbali di nga am jafe-jafe ñëpp nga ñi nga xam ñëpp ngay bëgg a jox wala wala ñoom ñoom nga bëgg a jox ñoom nga bëgg a fësal ci jàppaleen mbooleem ñi nga xam ne nii ñoom la bokkal liggéey bi mbir mi kat metti woon lool waaye mel na ni liñ ci doon séentu kowe na seen njort loolu moo tax nag Serigne Mbacke fàttewul benn yoon yëkkati ay kàddooy cant ak ay ngërëm ñeel mboolem ki nga xam ne nii jàpp nga ci lu jege wala lu sori rawatina nag staff bi nga xam ne nii moom la bokkal Mouride Media Group. staff boobu mm, damay mm, dama leen di remercier di leen sant. ci sa ci fu nga xam ne que ni mën naa ne tey bu ma doon yor li nga xam ne mooy mooy li nga xam ne mooy teraanga ji ëpp ci kaw suuf ku si nekk damay dem ba sa biir kër say say bokk toog ma defal la ko parce que am na suñu nga xam ne yendootuñ yendalatuñ fanaanalatuñ nelawatuñ parce que dañ dañoo amoon benn idée mooy naka ñiñ ci boole nañ leen boole ci benn groupe WhatsApp mais da toog ba yenn heure yi nga dégg sa téléphone sonné nga gis ku nga xam ne mi ngi ci biir groupe bi di indi ay xalaat di joyanti di pour que bis bi tey nii mel ni mu mel kon ñooñu amut loolu ñu fayee du sëñ Mbacke Dieng képp moo amal bis xëy na yàlla da koo may mu ne mu nekk ci bopp bi mais dafa am ay xale yoo xam ne dañoo am gëm-gëm ci xalaatub suñu Mbàkke Jeng am am gëm-gëm ci xalaatu Mourides Info ñu ñëw ne ko kat li nga nekk danañ ñëw jàppale la ci te yàlla tax parce que du kenn ci ñoom ku xëy suba ba na ma suñu Mbàkke da nga ma jox téeméer dañuy xëy te te te yàlla tax bu ñu amee juróom ñu xam ne juróom lañu am kon ñooñu amul leen amul loo xam ne que ni da nga leen ko mën a fay lu dul di leen sant ak di leen ñaanal suñu borom mi xam ne moo am teraanga suñu borom mi xam ne moo am mu defal leen ko jamono yi nag ci biir réewum senegal rawatina diggante Mbàkke ak Touba ñu nemmeeku fii ak ñàkk kaaraange gu fës loolu kat nekk na mbir moo xam ne nii Serigne Mbacke Dieng def na ci ab taxaw seetlu ginnaaw bi mu ko ñaawloo mu ngi woo mbooleem ko xam ne ni kàngam nga te sa loxo jot sa digg gannaaw wala sa kàddu sori nga ñëw nag jàppalewaat ndaw ñi nga xam ne nii jamono yii ñoo ngi ñàkkam xëy ba ñenn ñi nga xam ne ni seen xel gàtt na xiir leen ci ñuy àddu fii ak kilifa yii tey ñu defar promotion wan leen ne leen yéen a fi nekk ngir di xeexal département fayetuñ ci kaw indi li ñu lu tax ñu amum xëy ba xale yi mën na di teral seeni i waajur luñ gis ñu doyagut ndax doom mënta judd ba sol daal lu bàyyi mu jot ko te mënta joxe dépense mënta jënd suukar mënta jënd tàngal ñoom ñi nga xam ne que ne ñoom ñooy def promotion di def def politique di ñu woo ci mbedd yi ñuy soli tiset di soli xartum di daw ci naaj ba suñu daal di dagg fuñ buñ paloo dañoo war a xeex ci kaw pour jox xale yi am xëy feeg chômage persiste l'insécurité persiste agression yi ñu gis fii nii yëpp du lenn parce que xale boo gis tey nga mu xëy suba mën a wàcc wàccaale 2500 3500 joxe seen kër 1500 dese 500 ci poosam tëlut nekk ci mbedd mi di xeex ba ñu xotti ba ñu xotti mbubbam ñi fi nekk di agressé di kar nit ñi yoruñu lu suukar màtt te li koy saafara nag Bawol dañ na Touba c'est la deuxième ville du Sénégal mais deuxième ville Sénégal taux économique bi nga xam ne ndaw nit ñi fi nekk moom la ñuy gagné ci seen dund c'est inférieur à leurs nit bu mënta am 1500 te bëgg a dépassé 2500 wala 5000 francs jafe-jafe am kon kilifa yi nañ xam ne message lañ leen lancé tey ab fii ci Baol Events ne leen fu ñu mën di nekk nañ xam ne que département bi nañuy def bay implanté ay usine ci béréb ay ndaw yi gox ba di ca xëy ñoom it mën nañ ko plaider ci kaw ba investisseurs yi mën a ñëw investir Baol ci teewaayu ay kàngam yu ci mel nii su préfet bu ndaam di ki nga xam ne ni moo fi teewal nguur gi moom kat rafetlu na bu baax a baax jëf ji nee mbir mi ab soññe la ci mbooleem daw mi Baol joo xam ne ni yaa ngi fi xam ne mbir mi jomb la ngir jeexal ay kàddoom itam fàttewut benn yoon soññaat ñii di waa Baol Even ci njiitu Serigne Mbacke Dieng ngir nag ñu mën di mbir mi xam ne ab tegtal la ab soññe la ci mboolem doomi Baol joo xam ne nii yaa ngi yeewoo ci dënd wi. Baol Events euh, première édition la événement la affaire bu am solo la nay law nay continuer ndaxte dajale ay doomu Baol. waxtaan ak ñoom félicité leen génnee ñi nga xam ne bi ñoom la ñu ràññee si seen i pas-pas seen engagement seen abnégation si fànn bu nekk parce que loo fii te jii intégration leadership entrepreneuriat des hommes des jeunes comme des femmes yooyu yëpp boo ko tënki loolu lay fa Hampâté Bâ doon wax rek la diversité des couleurs fait la beauté d'un tapis diversité boobu c'est la diversité des fleurs qui fait aussi la beauté d'un jardin loolu mooy tax jardin bi rafet ku nekk fa nga nekk nga yëngatu fa gëm ni war nga mën a soqali sa sa sa réew sa diwaan foofu te euh, dañoo soxla ay modèle dañoo soxla ay référence te yéen tey ji ay référence ngeen donc continuer leen lii Baol Events def pour encourager leen tout simplement waaye yéen fi ngeen nekk yéen a ngi ci continuer di liggéey daa ngeen si am ngërëmal yàlla ak yonent bi sëñ Touba. ci ak fàttali rek Baol Events nekkan ab xew-xew bu njëkk boo xam ne nii kenn ci ndawi Baol ñoo ko amaloon ngir doon delloo njëkkal ay kàngam yu ràññeeku. waaye am ndaje la moo xam ne nii boolewaat na mboolem doomi bawol yi moo xam muy kilifa diine kilifa aada ngir ñu saafante nag du benn yoon bii rek lañu koy def dañ koy wéyal ci at yi di ñëw di ñaan fekke ko ak jàmm